bijou taux de chomage yu Sénégal bi ñu ko xoolee bizarrement euh, Syrie mooy premier au monde siri mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a ndóol moo amin pas ndóol xam nga ndóol benn affaire la chômage beneen affaire la mhm. réew mën naa bañ a ndóol sax waaye bari chômage te fekk réew mi ndóolu la ok donc Syrie ci ndóol Syrie mooy numéro un ci àdduna bi boo tappee Syrie mooy mhm. numéro un ci ndóol ci at ci ci ci ñàkk chômage beneen réew booy gis ci chômage ñu ne la Burkina Faso ok Syrie ñoom ñu ngi en guerre Burkina donc on trouve que ñoom dañu yoroon benn président Blaise euh, Compaoré mhm. boo xam ne dëkk bi xaw naa yëngu ñu am président bu bees donc ñu ngi amélioré tey nga dem ci Sénégal on est en troisième ou en quatrième position de chômage ça c'est dangereux dans un état mhm. mais quand même ñu gis ci mbindin jékki-jékki am na benn ministre defe naa ministre de la justice moo tëb mu ne Sénégal ndeysaan ñu ne euh, ñoom ñooy numéro un ci gouvernance ci àdduna bi raw Amérique raw France raw Dubaï ah d'accord kon euh, ma ne bu dee c'est le cas doomu aadama mën nañoo nax suñu bopp waaye euh, xanaa les faits sont là déedéet xam nga foofu mm-hmm. tamit certes am na ci benn sa dépend ci mm-hmm. sondage yi ça dépend ci analyse yi aussi mm-hmm. parce que tey euh, OIT OIT la ah mooy organisation internationale du travail ñoom nee nañ Sénégal bokk na ci troisième moo jël troisième place parmi les dix pays yoo xamante ne taux de chômage bi touché na leen like 48 pour cent yooyu la ñu jëm euh, mais tey. nañu waxante dëgg. waaw waaw waaw kon place non foofu déggoo li ma wax déggoo li ma wax. quoi qu'on c'est la vérité. benn parti mais est-ce que du tey man ju damay waxee ci ci état d'esprit wu bi nga xamante ne moom la Ousmane Tounkara ñëwee tey. Hmm. débat bi mënoon na metti comme bee passé. Hmm. mais tey. yaa ngi wax ci biir wax ji maa ngi réfléchir en même temps. Mhm. ci biir émission bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Mhm. en même temps mhm. est-ce que du tey Ousmane Tounkara yéen da ngeen a yéex indi ay solution wala yéex a def nii ngeen def tey yii bu ngeen ci jiitu woon. well est-ce que du tey duñu évoluer est-ce que duñu dépasser saagante ndey yi am nii ñaawante yi am actuellement parce que dañu waxante dëgg Ousmane Tounkara moo fa fayoon avocat Assane Diouf. Euh, waaw dëgg la. te combat boobu noonu non egg mun wuy ma amu leen ci victoire Assane Diouf mi ci kaso bi ba tey. well euh, am nañ ci ndax victoire. non victoire la victoire n'est pas toujours visible xam nga victoire ci ñun mooy la am na na loo mais am na loo wax sànq. mooy li may wax nit ñi toujours. Hmm. Euh, dans on combat parfois y a des sacrifices. Assane sacrifice waaw de xaaral ma ma expliquer la euh, metti na ci sama biir xool que tey ma mën a xool. famille Assane ci sama biir bët ma xool jabaram maa ngi koy nuyu de passage Malika moom fii la nekk Amérique di américaine waaye ba léegi ànd ak ngoram rester droit dans ses bottes euh, affaire u Assane c'est un cas triste te dama koy waxaat parce que li tax metti mooy il est un de nous te combat Assane bu fekkee seetlu nga suñu démb ñu mel ni man waruñu woon génn léegi boo ne woon Macky Sall tey choisiral nga bàyyi benn Assane Diouf muy xeex ak yow guddeeg bëccëg nga bañ koo faale bu sonnee xëy na mu dal walla nga am lu bari loo xam ne changé nga ko ndax moom ak nga dem tombeek ñu mel ni Ousmane Tounkara ñoo xam ne am nañu tuuti doole gën a mën a dooleel yeneen gone gën a mën a dooleel internet bi muy takk nag ñëpp ñu ngi ñu ngi ñëwaat ci yeneen doole yi sax parce que doole yi ci lañu nekk rek parce que li tax ñu def loolu hmm. lii nga gis ci internet bi nii yëpp par exemple muy ñun hmm. Assane juuf moo ko révolutionné xaw ma ndax yaa ngi bàyyi loolu xel loolu lu am la donc le combat de Assane juuf n'a pas été perdu parce que Assane Diouf euh, prend la non mënuma ko méngaleeg non il faut nga lu ma wax ma yeggal le combat de Assane Diouf n'a pas été perdu voilà c'est c'est vraiment euh, euh, wax dëgg yàlla xam nga da nga ñu yëpp yow yow da nga ñu yëpp ko ah, parce que boo fekkee ne da nga ne combat Assane Diouf c'est pas perdu Assane Assane mi ci kaso donc ku ah, bëgg jàpp ah. ne que combat am c'est pas perdu dina def ni mel nga xool na doo dellu ci kaso bi bijou bijou ki tax saaga ndey waaw kaay ma yeggali kaay ma yeggali dire du n'importe quoi non xam nga mën nañu bañ a d'accord ak contenu xam nga saaga baaxul doo def ko moom non parce que <laughs> ñemewuma ko parce que du question ne ñemewoo ko femme non ñemewuma ko non du non ñemewuma ko waaw xaaral xam nga du question de ñemewoo ko dama ko ñemewu yaa ngi wax j'ai une femme voilà femme boobu nga am uh-huh. femme boobu laa salam voilà njaboot gi nga am Assane njaboot am. non c'est différent lépp parents yooyu nga xam baa dafa naa ngi bi dañoo tijji fan. waaw dof waaw mais <laughs> léegi Assane nga bëgg def dof li daal waaye. non man j'ai pas dit que dof yi la da ne. daf ko révolutionné. voilà mais kaay ma yeewul sax dof. non mais kaay ma li muy def mi ngi xeexal sénégalais yi. waaw man je pèse bien mes propos et li may wax man ragaluma ko damay wax li nga xamante ne moom mooy état sama état d'esprit soxlawu ma ko li may xalaatee amul sama opinion ça importe peu mais damay dis damay waxee sénégalais bi nga xamante ne mi ngi toog te contre Ousmane Tounkara parce que tey maa yow bu ñu bokkee ci même longueur d'onde loolu lootul confrontation mhm. donc il faut ma waxee état d'esprit non man négatif donc euh, euh, tey jii benn nit boo xamante ne euh, yaa ngi toog yow d'accord ci li Assane Diouf di def d' accord ma ci saaga. mënuma cee d' parce que comme ni ma la wax toujours mënuma ne d' accord ma ci li Assane Diouf ci def d' accord naa mu xeexal Sénégal mais d' manière euh, quand même euh, acceptable parce que dama am njaboot Assane ci boppam dafa am njaboot. muy sama muy sama frère. ma am ay doom ma am jabar njaboot bi ba léegi donc. Euh, gën koo firndeel sax ndeysaan ci sama anniversaire bi passé sama doom yi dañ ma jox benn carte euh, carte bi yiñ ma ci defal ak yiñ ma ci bindal dafa mel ni lépp loo xam ne maa ngi koy wax ci àdduna bi ñoom ñu ngi koy dégg te fekkewuñ ko lépp lu may def ñoom ñu ngi koy gis te fekkewuñ ko ñu ngi may remercier àdduna bi mais en même temps ñu may mètre en garde donc loolu dafa am loo xam ne doomu aadama da ko war a seet mooy dama am Ousmane Tounkara mais Ousmane Tounkara genn wàllam la moom beneen genn wàll gi njaboot jee ko saan ndeysaan saan xam nga nag euh, euh, wax dëgg yàlla Ousmane bu ñu lay dégg ngay wax Ousmane ku mooy rectifié wu ku juum mooy rectifié wu <laughs> waaw xaar ma expliqué la Euh, tey boo toogee def rétrospective xam ne danga nga juumoon. ah déedéet déedéet yaa ngi jaxase carte gi yaay wax rek si si li nga wax. laa la mais ba léegi ah, ah. moo naan changement am na. waaye ku waroo defar sa toogaay changement du am. non bépp doomu aadama bu nekk ci adduna bi dafa am nu mu war a toogee xam nga nit bu dul évoluer dof la dof mënul évoluer parce que dof la wérul. am nga kooku dafa mais nit njaay day évoluer lu tax nit di dem jàng commencé jardin d'enfant dem CM2 bu jógee cm dem lycée parce que xam-xam bi day yokku donc xeex bi bi ma ciy ñëw sama xam-xam yeggul fii ci Sénégal mm-hmm. mais tey am naa beneen vision ci Sénégal da ngay xoos di gis léegi damay gis exactement comprendre photo Sénégal yëpp caaxaan problème u Sénégal yëpp du Macky Sall non il fait partir du quand même euh, problème yi am na lu bari yoo xam ne moom moo ko man a saafara. non daa jiite gaal gi di ko dawal. waaw mais gis nga muy capitaine bi rek. c'est ça le grand problème. man ma man tey bu ma nekkoon ci place su Macky xam nga lu may def déjà damay dooleel Antoine Félix John danga may dégg lu may yeggali xam nga lu may dooleel Antoine Félix John. Hmm. dama koy ne képp ku ñu jiiñ def lu ñaaw ci réew mi comme ni ko Macky Sall doon waxee bi muy laaj réew mi. Hmm. sa diggante la ak moom man sama yoon nekku ci bàyyi ministre de, de de la justice mu def liggéeyam. pourtant justice bàyyi ministre oh bijou arrête xam nga yenn saa yi nag bu ñuy def yi mm. waxtaan bi day xaw a jafe. Mm. justice buy def noonu lakal nag lan la bu di wut ci biti. mais Bougazelli il de des économies. xam nga jël xaalis bu baaxul. injecté ko daa fee ba déclaré daa fee ba. non mais liberté provisoire. <laughs> mais na dee ci biir mais na dee ci biir Bougazelli na dee ci biir non parce que dafa paralyser économie dëkk xanaa xamoo jël xaalis bu bon injecté ko ci dëkk bu amul doole kaay ma jox la benn exemple waaw xam nga Guinée Conakry Guinée Guinée Conakry xam nga ba léegi lan moo tax manul dem mhm. loolu la bi ñu xeexee tubaab yi ñoom da Sékou Touré dafa jël responsabilité moom mhm. mu ne moom bu mu njàmbi du ci dem day ut monnaie boppam mhm. xam nga lu tubaab yi def dañu defar ay faux yu bari sànni ko ci biir dëkk bi économie bi paralysée ba léegi Guinée Conakry mënul jóg. population bi gën a riche gouvernement population bi gën a riche ba pare dëkk bi dafa dafa dafa ndóol ba mënatul jóg xam nga lan moo waral loolu xaalis bu bon bu ñu éco injecté ci économie donc loolu bu amee ci réew mu mel ni Sénégal nga jàpp nit député du peuple nga jàpp ko buntu assemblée nationale ak koppar yu mel noonu mais ça c'est catastrophique man exemple yu mel noonu rek moo may moo may tere nelaw guddi su ma tëddee billaahi wallaahi yenn saay comme ni nga ko waxee damay toog man ci sama biir xol ma ne wax dëgg yàlla sama problème du Macky Sall problème mu Sénégal du Macky Sall léegi mais ma toog ba ci biir ñu ma ne ma benn nit a nii di défendre Macky Sall on le voit Bougazelli Macky Sall dafa war a am troisième dafa war a am quatrième dafa war a am nangam arrangement am lay wax le lendemain on te trouve à l'Assemblée nationale avec des sacs remplis de gën ci grave on te ñu ne la demal jibbi sa kër mu dem randal li mu yàq yëpp mu dem gën koo tas ci école dëkk bi ah, ban certitude nga ci am. mais buñ ñu ko kay. ma expliqué la. attends dama ne. non ko dem fekk ba fu muy ko mu dem. tey dañ ko bàyyi mu dem. naka lañ ko ku ne xam ne dañ ko fi tëj. non mais jour biñ ko jàppee dañ ko libéré mu dem moom biñ ko woowaatee mu dem wuyu dañ ko bàyyi jox ko rendez-vous mu xam nga fu mu fanaan nee na kër Alioune Sall wallahi billahi vidéo yaa ngi fi mu ne kër Alioune Sall laa dem fanaan vraiment ñu waxtaan bu baax imaginel muy dugg muy dugg jigéen dugg ci biir otoom ànd nag ak ay député amin ak avocat am euh, mm-hmm. l'avocat du ciel léegi euh, mu jël téléphone am nag oui waaye oui d' accord monsieur le ministre d' accord oui oui monsieur le ministre d' accord d' accord monsieur le ministre. c' est extraordinaire dans un pays de droit mais loolu bu doon Amérique scandale bi rëy na rëy boo xam ne président sax day day tekki ay doomu tànkam mu ne mu ne vraiment delloo naa leen réew mi parce que c' grave wala au moins au moins ñun dañu nekk ci état de droit xam nga mooy li ma lay wax toujours rek. Mhm. dafa am yu mel noonu moo ñuy merloo. bijou wallahi lazim da ngay dem nga bëgg sax man damay damay yeew yeewu naa ay suba yu bari yoo xam ne damay yeew rek ndeysaan ma accolé madame accolé xale yi ma ne leen man bàyyi naa coow c'est fini dootuma wax non yara yoo koy da ngaa njar sa bisaab moom <laughs> non bàyyi bàyyi ma expliqué njar soow li ba naa lépp ñu ne ma bàyyi ñu ne waa ñu ne ah d'accord non oh, da nga jënd frigo de ci ngoon si rek ñu commencé gis maa ngi pété ay câble encore ñu ne ma lu xew ma ne ko lii mënu ma bàyyi mu jàll ça c'est grave par exemple ñu pare ci Bougazeli gis suñu ministre de la santé ànd ak euh, benn waay ñuy këll këll dëkk bi. corona aujourd'hui cent vingt cas nangam nangam cent vingt nangam faux faux docteur mu ànd ak waa ji ndekete waa ji papu jiit la Macky Sall euh, Marème Faye Sall moo ko booleeg waa mu ànd ak waa ji ndeke waa ji amul diplôme docteur. mais kon ñun ñaata faux test la ñu am. waaye te waa ji dafa doon testé ay nit. waaye kooku ba mu ba mu ba bañ ko. gis ko tamit ko dal